démocratique d'un point de vue économique et cetera et cetera ba nga xam ne défaillance du ci am. Euh, defe naa ne ci foofu laay ñëw sax mooy contexte politique bi ak relation bilatérale yi. Mm-hmm. mais en attendant suivez avec nous bon war leen ma image yi donc l'arrivée du président de la République son excellence euh, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay euh, fële ca diwaanu France ànd ak itam soxnaam. donc euh, mu ngi noonu euh, si vous venez de nous rejoindre yéen a ngi ci Sénégal set on est en train de de de ci li nga xamante ne moo gën a fës ci actualité ci ayu bés bi wala sax tey jii euh, nga xamante ne ni kii di le président Bassirou Diomaye Diakhar fay mu ngi noonu di dugg ci biir foofee ca duwaanu France donc nga xamante ne nii Euh, mu ngay fas yéene amal après incha allah jombul bu defee li muy def lépp ak forum mbaag yëpp euh, am ak waxtaan moom ak kii di le président français di Emmanuel Macron. Mm-hmm. Euh, donc mu ngi noonu di soog a yegg si pour ñi ma ko doon laaj moo tax ma jox leen ko. donc mm-hmm. ak sunu ay naataango ya fa nekk. ñu leen di nuyu bu baax a baax a baax donc jombul itam on va en contact ak ñenn ñi bu ñu féexee. ndaxte euh, souvent décalage week liggéey bi ni mu xatee moo tax euh, jombul déggante beeg euh, jokkoo bi day xaw a métti trop mais incha allah vous aurez lépp lu jëm ci wàllu actualité ci visite boobu noonu nga xam te ne nii Euh, le président Bassirou Diomaye Faye mu ngi koy def ca fii di diwaanu France alors euh, sànq maa ngi koy wax Cheikh Ahmadou Bamba. Mhm. Euh, waaw maa ngi gis Aliou Sall donc le ministre de la com foofu moom fiefam la moom. Aliou Sall waaw muy noonu moom moo nekkoon député bu mhm. bu France donc actuellement mooy ministre bi ñu dénk wàllu communication donc moom moom moo ko war a dalal sax en principe. Mhm. ndaxte foofu foofu foofu basam la. donc waa France maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax puisque tey jii yéen a accueillir le président de la République son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cheikh Ahmadou Bamba. ñëw ci wàllu contexte politique bi ak relation yi Abdoul Khadr wax bilatéral man li ma bëgg a euh, mooy situation politique ba nekk ca France ginnaaw ba ñu defee ñoom législative yi ah, euh, ndax mënees nañoo jàpp ne mën na influencer ci ci wàllu discussion yi ak Sénégal am déet pense pas parce que euh, Sénégal day du du def benn ingérence par rapport ak li nga xam ne mooy la vie politique de la mmh. France mmh. de même que la France auparavant la France faisait des des émissions par rapport wax suñu suñu dundin. <laughs> ak suñu fii politique dynamisme mais ñun je pense que euh, amuñu ci benn loo xam ne tey jii mënees na ko cee def. Mhm. Euh, ba mën a influer par rapport moo xam vote moo xam lu mu mën a doon. jëm mhm. ci gauche ou bien droite. Mhm. et mais utilité bi c'est cinq wax naa ko mooy mooy d'abord c'est c'est un c'est un rendez boo xam ne euh, leçon yi daf cee bari wax naa sànq leçon de souveraineté leçon d'indépendance mais aussi c'est pour montrer maanaam euh, au monde entier que ñun am nañ fu ñu nekkoon mais jóge nañ fu am nañ feneen fu ñu nekk. fi ñu nekk mooy. Mhm. mooy tey jii li waa ji naan sama bopp ma la gënal du bañ naa la. Mhm. waaye ko bëggul mel ni ñun bëgg ñoo mel ni yow. Mhm. gis nga gouvernance ak leadership. ce n'est rien d'autre que la personnalité et la personnalité ça s'incarne mmh. quand un président de la République n'incarne pas une certaine personnalité son peuple ne peut pas incarner cette personnalité mmh. chance bi ñu am mooy tey on a des jeunes yoo xam ne ils ont compris leadership africain bi nga xam ne moom la ñuy doxal sur le plan vestimentaire sur les paroles sur l'idéologie yi ñu war a indi pour diir que attends ñun ça fait des siècles peut-être ñu ngi daw seen ginnaaw Abdou wax na ko sànq amuñu leen loo xam ne war nañ ko mën a wëri am nañ lépp mais xam nga lan la amuloon Abdou. on avait un problème d' organisation et d' organisateur. Hmm. on avait tout mais amuñu ko ko organiser. mi ngi mel ni un capitaine mu ngi mel ni nga dem dugg marché. mais boo amul ku mën a togg finalement am nga ingrédients yëpp mooy doo ko am mais chance bi ñu am mooy dafa am beneen phase bu ñu dugg phase boo xam ne dafa revêté wu ci li ñu naan un sursaut patriotique. africain boo xam ne ku xool jamono ji sous-région bi ni mu demee ku nekk yaa nga jëm di évoquer li nga xam ne mooy sa souveraineté ak sa indépendance donc la France am na lu mu seetlu li mu seetlu mooy il commence elle commence autant pour moi mm-hmm. à perdre ay fil yu bari ci sous-région bi mm-hmm. te ko wax wax dëgg di nga xam ne Sénégal sur le plan géopolitique géographique et géostratégique mhm. daa am une position boo xam ne dafa am doole mhm. ci li nga xam ne mooy ci ci ci ci les pays colonies bañ na ko sax seen capital bi koy samp ci e pratiquement Sénégal lañ ko samp mhm. c'est parce que xam nañu assimilation bi nga xam ne tey jii un Sénégalais moom la am xam na nañu ni nga xam ne mooy capacité d'assimilation bi nga xam ne aussi sunu président yi am nañ ko loolu moo tax à chaque fois il essaie de surfer ci naka la ñuy jéem a def ñoom ba redirectionner li nga xam ne moom mooy suñu objectif juste dans le but de plaire ou bien de déplaire ñi nga xam ne tey jii ñoom ñooy ñoom ñoom ñooy kam ñooy ñooy seen citoyen mais pour vous répondre le président Bassirou Diomaye Faye demul exclusivement pour seeti Macron mmh. certes nag politicien la Macron c'est un président mmh. boo xam ne aussi du cuune en politique mmh. peut-être situation bi moom mun na ci user waaye gëw moom mu am gain de cause tax mooy xam nañ ni le président Bassirou Diomaye Faye représenter le Sénégal mais en se mettant à genoux du ko def mooy ah, d'abord li la koy won mooy ku toog sa waaye un pays colonisé nga toog presque trois mois tegoo fa sa tànk ba ba nga fay dem yow da nga fa dem leneen yóbbu la fa nga soo ko gisee teg président bi loolu c'est un message fort boo xam ne je pense que c'est un signe merci beaucoup c'est ça langage la bu ñëw boo xam daf ko lancé et je pense que aussi que bon africains yi ils sont tellement contents du président Bassirou Diomaye Faye parce que rupture bi mu indi la je tenais à préciser que certes le président nigérien mi ngi doon wax euh, bi muy wax Bassirou euh, président Bassirou Diomaye fay ne ko actuellement Nigéria jeune yëpp actuellement ñëw lañ bëgg a mel parce que jeune nga may jël nga pouvoir hmm. mais le président Bassirou Diomaye Faye a eu l' intelligence parce que moom tamit li muy bañ mooy ko kumb boo xam ne ni yaa une euh, benn CEDEAO boo xam ne CEDEAO des présidents la mais ce n'est pas CEDEAO des peuples. buggul ñu def ko mascotte boo xam ne day dem di leen plaidoyer loo xam ne c'est c'est l'indéfendable moo tax il a précisé au Mali que je ne suis la là pour les comptes de la CEDEAO musuma assister à une réunion de la CEDEAO musuma toog si ci ci ci ci musuma assister ci CEDEAO mais nag c'est un devoir d'un Sénégalais d'un Africain. xam dafa soif par rapport à l'unité et l'intégration africaine moo tax ma ñëw di leen tàllal loxo yéen ñëpp te xam ne ngir bu ñu booloo li ñu mën a am tey jii dinañ dem ba CEDEAO bi nga xam ne moom la ñuy ŋàññi te à la base mu doonoon lu baax dinañ dem ba retrouver li nga xam ne mooy CEDEAO d'entente bi nga xam ne finalement moom la ñu amoon ngir mën a doxal suñu Afrique. mais mais mais Afrique gi déjà Sénégal quand on parle de Sénégal ndaxte depuis les indépendances ba léegi gis nañu ni ñu daan lëkkaloo gi doxoon ci suñu digganteeg réew bu mel ni France bi ñu nga jàpp ne colonisation ba ca moom la peut-être euh, la la la jaare mais attente yi fi mu toll nii. Eh, yafi woon gisoon nañ ko mais fi mu toll nii attente yan la Sénégal mën a am en terme de de coopération économique ak diplomatique eh, jëmale ko ci réew bu France. bon bari na parce que la diplomatie il faut il faut savoir que maintenant les gens parlent même de de de, de la diplomatie économique. Mhm. France bañu ñu lëkkaloo ak ñoom. c'est pas un problème de drapeau. Mmh. Mmh. si bien. interview bu bi bi le président Ousmane Sonko defoon ak ak Perelman mhm. mi ngi bi ko waaj di poser question naan ko est-ce que vous êtes avec la France ou contre la France ou bien avec avec Russie mhm. daf na ko nous on pas un problème de drapeau mhm. on li ñu am mooy d'abord képp koo xam ne tey ji suñu ressource ak suñu ay ay partenariat nangu nga ñu repenser ko nangu nga ñu reconfigurer ko ba tey ji mu doon loo xam ne gagnant-gagnant la tey ji mën nañu ubbeeku France c'est un pays boo xam ne peut-être mën na jariñ Sénégal ci yenn affaires yi mais nag Sénégal dañuy xool bu ñu xoolee maintenant ñu xam ne effectivement maanaam domaine bi ak domaine bi buñ ci lëkkaloo ak France moo xam Russie moo xam Gambie ak ku mu mën a doon kuñ ci lëkkaloo mu jëriñ ñu su boobaa dañuy lëkkaloo ak yow. Mm-hmm. mais c'est pas la France en tant que pays. nii les Français en tant que peuple qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est cette diplomatie-là, que ça soit économique, politique, qui nous intéresse, de telle sorte que l'essentiel, mooy ñun au finish ñun en Afrique ñun au Sénégal na nañu moomal suñu bopp li nga xam ne mooy tey suñu ay souveraineté. Mhm. moomal suñu bopp suñu koom-koom te fexe nag. lépp loo xam ne Sénégal la ko moom sénégalais yi jëriñoo ko. waaye kenn du fi ñëw tamit di ñu imposer ay partenariats yoo xam ne tey jii maanaam Sénégal euh, ay desit la ci am yow nga jël leneen lu yóbbu sa réew. Euh, souvent euh, réew yi ñoom base yi du équilibré Abdoul Khadr pour quoi mu am solo. ñu war a tëggaat wala redéfiniraat li nga xamante ne ni moom mooy relation bilatérale yi ah, ba mu nekk ci base boo xamante ne ni day équilibré selon toi. pourquoi mu am solo juste parce que il faut que ñu jot si suñu souveraineté. je crois que moom dam nekk na euh, maître moo yi nga xam ne moom la doon gën a dégg ci campagne électorale bi nga xam ne ñoom la ñu dénk réew mi jamono ji beneen bi aussi mooy li ñëpp bokk xaadim di ko wax chaque jour. c'est ça ñëpp jot si ñëpp jot si. donc ce qui est inconcevable ce qui est inacceptable mooy lii ñëpp bokk ci biir réew mi am ab doxandeem lañ koy wax de ah. doxandeem daal di ñëw te euh, askan woowu jot ci li nga xam ne ñoo ko moom. te defe naa ni depuis 1960 ba tey du ma ne euh, ci lépp de waaye ci lu bëri ci lu ñu gis ah ce système de de domination la boo xam ne France da koy exercer. ci euh, euh, certains pays africains yi nga xam ne en tout cas moom la colonisé da ngay gis ne de plus en plus dafay dem ba day commencé di dakk mm. boo xoolee France euh, dafa nekk actuellement dañ ko acculé mm-hmm. un peu partout en Afrique de l'Ouest mm-hmm. à l'exception de la Côte d'Ivoire mm. li ko waral nag mooy mm-hmm. njiitu réew ma fa ne njiitu réew ma fa nekk nekk na koo xam ne taxawaay la am ci wàllu France Afrique donc ci biir précaré bi nga xam ne France moom la amee fii ci Afrique da ngay gis ni ñëpp soit ñu ngi bëgg ñu fermer les bases militaires base présent la présence de bases militaires dans certains territoires africains mooy nekk en en fait le premier signal bi wane ne réew moomu amul souveraineté il peut y des accords militaires mën nañ ko nangu mais accords yi mu doon loo xam ne xel mën na ko nangu mais c'est pas que euh, dañuy jël à tout bout de ñu ñu ñu ñuy ñuy installer des des des des des camps militaires des bases militaires mel ni réew mi nga xam ne moom moo fa installé moom moom réew mi c'est-à-dire que euh, euh, loolu nga xam ne mooy domin xeetu domination boobu noonu la moo nekk di dakk euh, de plus en plus moo tax boo xoolee ces derniers temps France dafa nekk en perte de vitesse euh, ici en Afrique de l'Ouest Sénégal nag temps mieux pour la France le Sénégal est modéré par rapport aux autres euh, pays lu ci mel ni le Mali le Burkina Faso le Niger hein, euh, le Tchad on peut pas dire ça parce que le Tchad les relations sont toujours bonnes mm. euh, c'est le fils de Déby qui est là-bas les relations yi nga xam ne Déby amoon na ko avec la France certainement mooy nekk relation yi nga xam ne mooy continuer mm. euh, duñ ci dugal également la Guinée bi nga xam ne bon c'est un pouvoir qui a été remis au peuple guinéen mais reconfisqué par le colonel Doumbouya parce que askan wi amoon nañu yaakaar ci moom waaye dañu gis ne par la suite on a l'impression que Doumbouya est de connivence avec le le le, le la France donc euh, li tax mu am solo Djibi Sarr mooy ne euh, souveraineté boobu d'abord lu ci am solo la euh, souveraineté bi duma si ñëwaat Bamba détaillé nag tout à l'heure njariñ yi nga xam ne mën na ko am yëpp sur tous les plans ba nga xam ne Sénégal dina mën a am jafandukaay bu dëgër a dëgër pour mën a en fait euh, discuter avec les partenaires ce que ce, cela qu'on appelle les les les les euh, techniques et euh, ci ay anam yoo xam ne anam yoo xam ne Sénégal du ci ñàkk dignitéem mmh. beneen bi aussi vis-à-vis des de ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods mmh. euh, bi li tax mu am solo effectivement bon je sais pas si les économies les économistes euh, croient que on peut pas on peut euh, effectivement se détacher totalement des institutions de Bretton Woods ou non mënuma ko wax mais ce qui est clair mooy la souveraineté mën nañu permettre un peu dépendance bi ñuy am ci yenn financement wala yenn disponibilité de fonds yu Bretton Woods yi mais ñu am ci un peu d'indépendance te loolu li ñu koy may effectivement c'est la souveraineté d'abord la souveraineté alimentaire loolu buñ ko étendre un peu partout en Afrique xam nga ne la les terres africaines son euh, terres la yoo xam ne ils répondent vraiment à l'agriculture des terres très fertiles ak xeetu fruits ak xeetu légumes boo mënti gis mën nañ ko bay ci suufa Afrique yi donc loolu euh, souveraineté boobu lu ci am solo la beneen bi aussi may daanelee foofu mooy euh, la France actuellement dañ ko pousse si benn posture boo xam ne elle est obligée impérativement de revoir sa poste sa sa sa sa sa sa euh, copie mm-hmm. par rapport ak euh, relation yi mu war a am avec les États africains heureusement tant mieux pour les pays africains pour les États africains ñu am ay euh, présidents yoo xam ne c'est des présidents qui sont nés à partir des années soixante-dix mm-hmm. parce que ñooñu dañu gis ne dañu am une certaine lecture vis-à-vis de euh, de lu ñu wax la liberté la liberté assumée la liberté dans la responsabilité mais la liberté bi nga xam ne dinañu fexe ba suñu réew lépp luñ koy taxawee di ko taxawal ñu fexe rek ba réew mi askan wi nga xam ne moo bokk ci réew moomu ànd ak dignitéem mais di yëg dignitéem ci anam bi nga xam ne njiitu réew ma noonu lay jëflante ak yeneen réew yi rawatina nag bu France. donc France actuellement beneen complication bi ci am jibi nga baal ma ma daan lay foofu mooy la percée de de l'extrême droite. Mhm. dégg nañu. lecture ak euh, vision bi nga xam ne extrême droite bi am na ko vis-à-vis des des relations avec la France avec euh, les pays africains euh, certains même disent que on doit effectivement laisser les pays africains ñu assumer seen souveraineté mais souveraineté boobu c'est avec des moyens qu'on doit les assumer euh, parmi ces moyens là il y a l'intégration mais il y a l'unité également même l'unité si l'unité n'est pas intégrale mais on essaie de faire de sorte que ñu am benn bloc bu solide boo xam ne et je crois que c'est dans ce sens-là que le président Bassirou Diomaye Faye est en train de travailler euh, ci euh, rencontre yi nga xam ne am na ko un peu partout Euh, euh, chez les pays limitrophes donc loolu bu ñu xasee ba am ko rek dinañu permettre ñu am un bon départ euh, par rapport à cette souveraineté là et qui va nous permettre effectivement mais de de discuter euh, de manière ba nga xam ne euh, du ñu sentir benn yoon fu ñuy exploiter les pays africains et n'oublions pas aussi que Djibi le Sénégal est un modèle pour les autres pays africains euh, grâce il faut le constater au combat qu'a mené votre leader le euh, le premier ministre Ousmane Sonko je peux plus dire le président Ousmane Sonko parce qu'il y a déjà un président l'ambition c'était de faire de lui un président de la République président mais quand même il reste le président de PASTEF on est dans le cadre de, du, du raisonnement par rapport à l'État du Sénégal donc il y a un président c'est le président Bassirou Diomaye Faye et il est très en phase avec lui parce qu'il l'accompagne dans ses politiques publiques mm. et il est en effectivement d'assumer vraiment euh, li nga xam ne mooy leadership bi ko njiitu réew mi jiit euh, dénk euh, par rapport au déroulement de des politiques publiques mm. ak li nga xam ne mooy vent de changement bi nga xam ne war nañ ko mën a wasaare ci réew mi alors vent de changement boobu noonu daf ñuy permettre ñu wax ci perspective future yi Cheikh Ahmadou Bamba ah, lan mooy principal ci nga bokk sax mais